asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah vendredi 19 juillet 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi kaay yi nag tey moom jàppal yëglikaay bi di sunu làmb day dafa mel ni daal coowal Boy Niang ak Lac moom mu ngay continuer rek di wéy coow la ba tey jeexawul ipongaar yi ma xëyoon dem ci journal bi moo xëyati tey ci journal bi ipongaar yi daal la muy xamle day nee na kere arène nationale day ñii nga xam ne nii day ñooy sécurité ba fexe nañ ba loo xam ne day mënoon na fa am ci ay dégâts amu fa rawatina nag la nga xam nii jàpp na ne buñ ko joxe woon muy ndamal Lac de Guiers nee na ko joxe waxoon moom il faut nga rey wax de nee kon su ko day jàppal ne lu doyo doyo waar mën na faa am rawatina ci supporters yi nga xam ne ni ñoo doon supporters yi Lac de Guiers numéro 2 yi mu mel ni ki daal kon jàpp na ne kere moom su fekkoon ne arbitre booba mu àttee dafa jox Lac de Guiers victoire moom lu doy waar wala les mënta net li dina am yëglikaay bi moo xëy tey dalal ko muy waxati ba tey tamit yëglikaay bi ñëw na ci kii nga xam ne moo di guy gi Sa Thiès na ñoom day kere yooxoo nañ leen ca stade ba ba xaw a sax dal seen kaw moo tax yëglikaay bi ne dañ leen a escorté escorte police daal moo leen mujj a yóbbu ñu ñibbi suñu làmb xëy tey di wax Balla gay numéro de moom daa mel ni moom loolu la géntoon wala mu xam ko bokk ba tax déplacé wul yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ko wax maanaam Balla daal moom mujjul ñëw ca lamb ja waaye ba tey ca lamb yooyu ca la ñuy des mu mel ni kii nag Lac de Guiers numéro de moom butéel bu ndaw ba nga xam ne ni day ba arbitre soufflé moom la arrière laaj te ñu jox ko mu sottee kooku mu ñëw ñu soufflé waat daa mel ni nag la ko butéel ba mu jural ci xaalis moom bëri na boo xam ne CNG bi dagg na kooku un million deux cent cinquante mille francs day daa mel ni loolu la ko butéel ba mujj a coûté ca loola nga xam ne ni moom la def mu mel ni ki daal coowal combat boobu moom mu ngi continuer wee rek tulli ak màlle ci dëkk bi diggante Lac de Guiers numéro 2 ak kii nga xam ne ni moo di Boy Niang bu dégool mu mel ni ki ba tey rek am na ñoo xam ne moom benn micro sondage la yëglikaay bi xëy def laaj leen ay seen xalaat ku ci ne nag yaa ngay joxe ñii ne nañ Lac de daan na ko ñii ne Lac de Boy Niang daanuwul mu mel ni ki daal wax ja moom bari na ku ci ne yaa ngay wax ñeneen a ngi nii moom wala beneen combat boo xam ni day coow la war naa commencé wala mu commencé muy diggante Eumeu seen ak Modou Lo Moussa Diallo moom ab spécialiste la ci wàllum daal ay wàllum yëkkati ay weñ def yu mel ni ki noonu waaw moom daal la mu xëy di ko xam ne day nee na jàppal nee na combat boobu mooy nekki combat de l'année moom daal jàpp na ne ñaari ñii day bis bu ñu bëree ba pare jàpp na moom Moussa combat boobu mooy dàqi ci saison bi yeneen combat ngi yoo xam ne day bu amee ba jeexit des na ko xel di fàttaliku muy ñoom Tyson 2 a Sock yëglikaay bi xëy ñëw tey ci Tyson 2 Tyson 2 nag mu ngay wax ak Gora wala góor a Sock mu ngay wax ak kii nga xam ne nii moo di Tyson 2 xam na ne daal jàpp na ne moom day nekkul client boo xam ne nii ci moom client bu ko jaaxal a jaaxal la loolu daal mooy waxi kii nga xam ne nii moo di Gora Sock jëmale ko ci kii nga xam ne moo di Tyson 2 waaye weekend bi it day daa mel ni nar naa saf lool ci diggante kii nga xam ne moo di caatu yoof ak ki nga xam ne moo di Pape Thiam Ibrahima Mbaye bu Faas moo xëy tey di wax mu mel ni ki nag moom dafa mel ni caatu yof sax la xaw a jox lii nga xam ne moo di fafaru combat bi combat ba nag jéy moo ko tëgg mu aram fii nga xam ne nii moo di Iba Mar Diop ci waaye jamono jooju tamit sëñ Modou Niang tëgg na combat fa nga xam ne mooy ci arène nationale ci dimanche ja waaw Mori Cargo ak Njaga Caam mu mel ni ki tam booba combat zal ba mu ngay xëy tey ñëw di ca wax mu mel ni ki nag est-ce que sax loolu du nekk journée bu mujj ren ngir ki nga xam ne moo di Serigne Modou Niang Mamady Ndiaye moom ñëw na ci wàllum làmb ji di wax boog ci simple bi palmarèsam ay jaar-jaaram ak li nga xam ne nii day jot na koo def ba xam ne ne daal deux cent drapeaux moom mu ngi ko denc maanaam ñaar téeméeri drapeau mu ngi ko denc këram mu mel ni ki moom tamit day li simple bi wane na ci boppam bu baax a baax a baax a baax a baax li leer ba leer nag jàppal beneen combat boo xam ne ni day dafa taxaw wala beneen tournoi boo xam ne ni day dana am le 31 juillet yëglikaay bi ñëw na muy jax teg na li nga xam ne daal moo di un million la teg ci wàllum lutte simple bi pour le 31 juillet waaye li am ba des day ñun moom dañ naan allez les lions allez le lions Talla Ndiaye allez Sadio Mané et ses compagnie Sadio yàlla na leen yàlla dimbal tey musal leen ci cat làmmeñ ak xool bu iñaan akuk joxor ba yàlla def ngeen gañi coupe bii ndax nag yaakaar naa tey moom képp ku dib sénégalais foo mën na ci àddina bi di nga ñaanal tey réew mii ne nag muy Sénégal ginnaaw mu ngi finaalu ñaari yoon coupe d'Afrique bu jëkk ba ñàkk ak Algérie nanu ñaan waaye itam ñu bàyyi suñu xel ne yàlla moom fépp la nekk te mbir bi nag sport la li amoon solo daal moom mooy def nañu ko ñaar fukki équipe ak ñeent taala ngay xeex di xeex ba dem final kon yaakaar naa boo nekkuloon jàmbaar wala gaynde piir lool doo ko mën a def waaye yàlla na yàlla def récompense ba di coupe d'Afrique bi ñoon di ko ci réew mi ndax nag kenn amul lu dul fi nga dëkk te Youssou Ndour wayoon na ko li nga doon taala Ndiaye soo ko bañee dafa fekk nga gën caa ñaaw ay sénégalais lanu ay sénégalais lañu sës bi fier d'être sénégalais ay sénégalais pur ça waaye Talla Ndiaye yal na ñëpp am jàmm Talla ku sa xol di metti sax yal na la ko yàlla bësal ba mu wér jàmm wóor Talla te neex mbokk yi sur Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen euh, baalu àq te leen euh, baalu àq ci ajuma ji mu nekk tey ajuma boo xam ne macha allah Babacar dafa spécial tey Sénégal euh, mu nekk ajuma bu ñuy joué waat suñu Coupe d'Afrique ñi ñaan yàlla yàlla Babacar bi yàlla may ñu si ndam lu sedd guyy te mu jig ñu macha allah Babacar nuyu naa la. fay naa la Aïssa di leen nuyu di la ziar di nuyu internet yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom di naan amin amin ci ñaan yi am na solo olof a ko wax lu dafa waxu lu aay di njàmbat tey nag li dafa waxu mooy Coupe d'Afrique ba nga xam ne équipe ya fa newoon bëri na Sénégal ak Algérie ñoo fa des di ko finaalu te ñun ñu dëkk ci Sénégal gii nu ne di ñaan yàlla jàmm ji fi ne yàlla na ko yàlla yokk waaye di ñaan tamit yàlla suñu borom Coupe d'Afrique ba nga xam ne moom la ñu xëccoo tey yàlla nañ ko yàlla jox ci joxin bi nga xam ne mooy bi gën ci ñun parce nag ñi ñi ñi nga xam ne nii ñooy fàttaleku fàttaleku nañ ñi jàpp jàpp nañ ne que Sénégal moom ci wàllum football ajjuma jig na ko lool kon na mënu daan jige yàlla na continuer di ñu jige noonu tey ba ñu jël coupe d'Afrique bi yaakaar naa Sénégal France ca coupe du monde 2002 ba bésu ajjuma la woon diggante 10 heures jàpp 11 heures kon daal yal na ñu am ndam ñoom Sadio Mané ak sama booy ba Saliou Cissé ma koy nuyu di ko ziar mais di nuyu tanière bi yëpp mais à Aliou Cissé kenn du monsieur le ministre monsieur Ba waaw moom it ndax disponibilité ak maanaam xolam bu rafet ak ànd ak esportive yëpp maanaam ku ku ko woo mu wuyu la loolu war na tax na sax mu mérito tey am sax coupe du monde pour man man depp yaakaar naa sax xolam boobu war na ko sax man a wallu tey ba mu am sax lu raw coupe d'Afrique pour man waaw euh, incha allah Babacar dañ leen di ñaanal euh, fi ñu toll rek daal di dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi commencé ko ak euh, Hippo Ngary moom ginnaaw bi mu génnee tamit démb wax ci li nga xam ne nii mooy combat yi moom tamit tey ñëwaat na ci li nga xam ne nii moo amoon fële ci arène national diggante Boy Niang ak kii la dege moom nee na foofu nag décision bi ñu joxee mooy nul bi fa am calmé na lu bëri parce que buñ fa joxoon la degeer ndam dina doon demee neneen ndax keroog booy ñaar li mu andi ci supporter la degeer andiw ko fa woon waaw loolu la ippongaar yi wax ñu koy nuyuwaat di ko ziar comme niñ ko xamee rek waaye ci cadre sport defe naa est-ce que loolu raison la maanaam diw bëri na ay supporter rek tax li ñu war a àtte duñ ko àtte non man yaakaaruma ne loolu mooy raison li war a am daal mooy bu fekkente ne ñu ngi bëre ki am ndam jàpp nañ ni kii la ah, kooku ak lu mën a xew dañ koy jox ndamam bu fekkente ne arbitre tamit dafa gis ne ndam amu fa match ni la fa am loolu mu def it ñun ca la ñuy sukkandiku waaye nag yaakaaruma ne tey Aïssa Faye a ngi xëccoog Talla Ndiaye rek Aïssa gagné na Talla ñu ne Talla fépp ay supporter kon du ñu jox waaw nañ bàyyi mu sedd non non non loolu moom nekkul loi sport yaakaar naa it ña ña àtte combat ba est-ce loolu moom du nekk raison bu valable moo moom ngay layale bis boo xam ne nii ña jongante def nañ la leen waroon yaakaar naa kon damaa gëm ne man ci sama li ma jàpp mooy arbitre ba la mu àtte woon bu fekkoon dafa àtte ne jël moo am dem bal yàgg mu consulter ay sisam mu ànd ak ñoom ca la ñu wax ba tax ñu bëréwaat ba combat ba niil man dama gëm ne arbitre ba loola mu def conviction ak ña mu doon liggéeyal loolu la ko loola loola ko ko def loolu laa jàpp waaye du ma yaakaar ne ay supporteru diw ñoo ëpp diw wala ay nangamu diw wala bu diw amee nangam am tax ñu xañ keelee loolu moom bu bu neen noonu la amee sax warta am Balla Gaye feesal na stade ñu daan ko Babacar Siteu feesal na stade ñu daan ko. bu doon loolu rek kon ñu bëri duñu am jël. <laughs> ndax mbër yi mënuñu tolloo ay supporters moom sa impossible ku nekk sa code de popularité yaakaar naa ne loolu moom du raison bu valable bu dee looloo am bu dee lu am la du aw yoon te xel nangu ko te itam du sax lu ñu war a wax pour man parce que wala ñu koy xalaat li am daal mooy loi sport yi li mu santaane arbitre sa la di am na lu am. atte na bi mu attee jàpp na bu fekk dafa jàpp ne jël la ay wax ak ay siisam ñu ne ko jël la amul njaax la wala na ñu bërewaat wala trois appels wala nangam la ñu bërewaat man dama gëm ne bu ko defee foofu la ko teg moom ci yoon la nekk waaye kantaan nag moom kii ëpp le lii kii ëpp le lii ba tax duñu jokkee la mu moom loolu moom yaakaar naa xel waru ko xelaat sax jërëjëf li nga xam ne ni mooy euh, combat royal bi Moussa Diallo tamit di préparateur moom tamit nee na combat bi gis nañ ni mooy doon combat de l'année parce que moo nar a dàq ci combat waaw war nañ ko mën a xaar parce que combat royal la benn te li tax mu war a nekk combat de l'année seen combat bu njëkk boo ca xoolee rek nañu ko bëree woon ak na mu méttee woon diggante Eumeu ak Modou yaakaar naa. xalaat naa ne bii di ñëw mën nañoo defaat lu raw loolu te suñ ko defee comme loolu musaa Diallo wax mën na nekk combat de l'année parce que ñaari mbër yépp ku ci ku ci mën a doon borom jom nga borom fulla nga ndax Eumeu Sène am fulla ak fayda ak jom moo ko ni tey mu nekk roi des arènes ndax fi mu jaar metti na Modou Lo tamit jomam ak fullaam ak faydaam boo ko gisee ak bindam moo tax tey mu mën a affronter mbër yi muy affronter bay am ci ñoom ay ndam kon ñaari mbër yi ñaari borom jom lañ ñaari borom fayda lañu te ay ci ay gox lañu dëkk ndax ku ne xam na pikin ni ñuy ni ñuy taxawoo seen euh, seenu athlète ak ni ñu koy supporter parcelle itam gis nga ni ñuy taxawoo seen athlète ak ni ñu koy supporter kon loolu Moussa Diallo wax moom mën nañ ko xaar ñun daal liñ ñuy ñaan daal yàlla bu ca si niil am dañuy ñaan daal yàlla mu am jël bu leer nañ que le meilleur gagne buñ ca yeggee le 28 juillet incha allahu rabbi. parce que ñu doon annoncé li nga xam ne mooy face suba incha allah wala la doon. waaye ñoom ñaar seen face à face Eumeu ak Modou ñu ngi koy annoncé pour monument de la renaissance suba si guddi ah, li ñu cay waxaat tamit rek mooy li may wax tout temps rek yàlla na fekk ñu gagné suñ coupe d'Afrique ba pare nga xam ne face à face ba day gën a neex voilà euh, mais li ñu leen di wax li ñu sensibiliser ñi nga xam ñoo cay dem daal muy supporteru ñaaru camp yëpp nañu teg mbir mi ci cadre sport rek parce que li ñu boole mooy Sénégal gis nga tey kenn kër gi yëg kër gaa ñëpp ngi àndandoo ñu bokk benn bëgg-bëgg bi takk benn drapeau bi muy drapeau national bi ngir supporter suñu ay gaynde loolu tamit même bu jeexee làmb suñu dëkk lay amee mbër yi koy bëri fii lañ dëkk ñëpp dëkk ñoo bokk lépp nu ñu yemale ci cadre sport bu ñu yeggee daal ku nekk indi sa mbër gunge ko supporter ko bu sa moroomu mbër di wax nga bañ ko yuux wala nga bañ ko wax bu teggi niwul nga bàyyi ko déglu la muy wax ndax lu lay amal njariñ lay doon keneen kay itam noonu pour affaire mën a jaar si jàmm ñu duggee foofu dem seeti Gora Sock ginnaaw bi ki nga xam ne mooy Tyson 2 dafay open press wax moom it euh, génn na tey tontu moom nee na li muy xam ne mooy combat bi daa am importance trop trop ci moom parce que dafa am fu mu ko fu mu ko war a yóbbu. waa loolu la wax moom importance gi mu am ci moom ak fi mu ko war a yóbbu tey jàpp na ne du adversaire bi moo ko mën a téye bii sax boo xoolee def nañ benn émission fi nga xam ne mooy ci 2STV. yaa ngi dégg mbër yi fa mbër yi mbër yëpp boo xoolee six combats yëpp andi woon nañ leen fa la ko commencé ñoom Gora Sock Tyson 2 ba ci ñoom bébé Bismeek waaw ñoom doomu Dangoog Farouz a Lamine Jokkel Nguer ak Franc nga xam ne boobu mooy drapeau Leewtoo Nguer Franc boo xoolee bi jataay ba moo ca dàqoon débat boobu digée waaw drapeau Moussa Diaw xam nga Moussa jaw moom mooy Diaw borom ADN mooy borom asalem xam nga kooku kenn du moom ku baax la macha allah itam te ku ku maanaam ku ku yëwén la ci ay employé kon Moussa Diaw ñuy wax ne drapeau boobu la 27 moom ñu ngi sensibiliser ñëpp nañu ñëw rek képp kuy soppe Leewtoo wala nga soppe Moussa Diaw ñu ngi lay wax arène nationale ba le 27 lay doon di wax ne que daal góor a soog ak Tyson 2 moom du yomb ndax Tyson 2 moom nee na ña góor a soog di àndal sax malin dàq bëri du ma seen morom te xamante nañu góor a soog ne ko lu mënti xew maa la laajal sama bopp te dama lay daan kon lu ñuy def aysa nañu yónni yàgg ba la 27 incha allahu rabbi ñu daal di yónni yàgg ba le 27 dem euh, si li nga xam ne ni Babacar euh, mooy am dimanche muy ay gala de lutte fële ak euh, arène nationale jee di tëgg sëñ Modou Niang di tëgg kii di Caatu Yoff ak Pape Thiam sëñ Modou kii la jee production la Ndiaga Thiam ak Cargo Papa sëñ Modou Niang lay doon ci arène nationale. waaw waaw sëñ Modou Niang moom itam di promoteur boo xam ne ñu ngi koy nuyu di ko ziar mu ngi promouvoir bu baax a baax parce que mu ngi tëgg xale yi parce que boo xoolee chaque week-end dina tëgg làmb parce que dimanche le 21 Mouri Cargo ak Njaga Caam muy combat espoir bu neex kon ñoom ah amateur yi nga xam ne wala supporter yi nga xam ne dañuy supporter ñooñu arène nationale am nañ fa combat bu neex ci dimanche yi dimanche jooju ba tey Iba Mar pour wane ne lamba ngi dox rek jéy moo woote ñaari xale yoo xam ne tamit koo ci gis rek ëllëg xalaat nañ mu bokk ci champion yi tee lamba ji muy Pape Thiam ku ne gis na ko mën a bëreem ak technicité am caatu Yoff mën a bëre am technique ñoom ñëpp ñu jóge ci ay gox loolu dimanche tamit lay doon Iba Mar Diop mu mel ni kon weekend bi tamit après final bi incha allah rek ñu jëlee coupe bi ba pare gars lamb bu baax a baax ci arène yi waaw Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñëpp daal di ziar Mame Talla ci àjjuma bi chéri Lebu di ziar équipe Leewtoo TV bi yëpp lay béggee a un joyeux anniversaire sama caatu bopp ah, siga maa lay souhaiter un joyeux anniversaire di la ñaanal gudd fan ak wér métier bi nga tànnal sa bopp yàlla defal la ko euh, mu noonu li gën ci yow nga am ci ay succès ñu lay dégg partout dans le monde incha allah mu lay ñaanal yàlla musal la si cat làmmiñ musiba musibaak balaa lépp lu bon rek yal na la sori incha allah nga dund bay teral sa famille bi yëpp peace and love boy. Mm, ah Siga Siga mooy caat Siga maa ngi lay nuyu caatu mère Sougou mën naa ne sax sama Siga ah, parce que xalaat naa ne ñaan yooyu nga fi ñaan yëpp moom ci kàttanu suñu borom bu baaba bu Babacar ak Siga dajee moom loolu day day am si kàttanu yàlla kon Siga ñu ngi lay wax nekk anniversaire bi yàlla na nga ko yàgg a feete yaa ngi dégg yàlla defal li nga bëgg ci sa métier defal la ko tamit ci sa vie yàlla may kër bu baax. boo xam ne dina la mën la yërëm yiir la àttan la tey yor la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam defal ko bépp doomu aadama tamit di la wax ne que rek àddina moom li ci am solo mooy nga am bëgg-bëgg ci lu baax am bëgg-bëgg bu baax ci say jur mais am ko ci doomu aadama yi ndax itam boo amee yéene bu rafet ci doomu aadama yi rek yàlla moo lay tegal boppam loxo kon si ga yàlla na nga ko yàgg a feete di la wax ne nag dinaa ñëw man def ci anniversaire bi à ma manière ak yow parce que loolu Aïssa ak mère Sougou dañ ma ci jox euh, ndigal di nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre di nuyu waa ëttu làmb dem dañu ma invité woon ñoom ay sénégalais yu nekk à l'étranger lañu Assane Sakho mu ngi ba Mauritanie ñoom Badou ñu ngi ngi New York nga ñoom fu a nga fa bu baax a baax 100 pour cent ñoom Cissé nuyu naa ñëpp jàmm mais Aïda Diouf encore une fois bu Leewtoo Aïda maa ngi lay bëgg bu baax baax di ñaanal jàmm di ko ñaanal waa Leewtoo yépp di ci jiital kilifa gi Pape Thialis Faye mais fàttewuma kenn Aysatu li may mujj wax daal mooy ndam li si kàttanu yàlla yàlla buur bi nu ngi lay dagaan di la ñaan yàlla nag ñu jox coupe d'Afrique bi ngoon ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Fatma Fall nuyu naa la tuuti yaay Sarr Khady Rose Ndiaye soxna Asi Diagne ca Mauritanie moom tamit ko fàtte maa ngi koy bëggee bu baax a baax Aysatu Faye xol bu sedd yaram wu sedd Aysatu ku mer sax yal na yàlla fóot sa xol ba nga bëgg ndax xol bu leer ak mbégte dafa baax ci doomu aadama day guddal fan di wérlu yaram mbokk yi ba leen di incha allah